Touba ca kanam uh, di kuréel gi nga xam ne moom moo jóg teg initiative ñaari millions yi taalibe weer wu nekk kenn ku nekk joxe ñaari téeméer mu nekk ay koppar yu takku ngir ñu mën a daal di liggéeyal Serigne Touba ngir murit yi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bu sell bi ci Touba ñu seen bopp lépp loo xam ne lu jëm ci ay infrastructure la ak yu ni mel loolu le uh, tax seen première étape ñu daal di woon koy jubal ci ab poste de santé ci Touba Lansar jamono ji nag seen ñaareelu jéego ñu ngi ko daal di def ci ay oto mbalit yoo xam ne ñu seen lim toll na ci juróom ngir ñu daal di mën a ramasser ramasser lépp loo xam ne nii mbalit la ci dëkk bu sell bi ci Touba boobu la liggéey nag ci ayu bés bi ko doon jébbal xalifa général des mourides jëf yi fi ngeen ko tàmbalee dara ëpp ko ci solo ndax wàllu wér-gu-yaram nit baraatal dara day fekk jëmmam na fi day fekk it moom wér-gu-yaram kon li ngeen ci tàmbali tàmbaleen ko daaw ci màggal gi muy ay somb yu rëy loola rafetoon na lool jàpp naa ne itam mu ngi sutaam yeneen naal yi ko gën a kawe hmm. waaye lii ngeen defaat tey muy jëf photo hmm. yu bari hmm. ñëw jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mountakha kon nag sëriñ bi nag mi ngi soññ taalibe bi yëpp lu ci waaye jëfoon nga xeeb ko te fàtte ko te fas li ci kanam itam lu ci mën a jëf moo xam ne boppam la ko jëf ginnaaw bi ñu ko jébalee xalifa général des mourides nag moom Serigne Mountakha Mbacké a ngay fësal ne liggéey bu toll ni jox ko Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul li ci war rek moo ñu tegaat ko ci loxoy maam Cheikh Ibrahima faal ba tax mu daal di joxe ndigal ci waa Touba ca kanam ñu ànd ak kilifa yi daal di koy jébbal Serigne Cheikh Jëmbu Fall ngir mu daal di saytu lépp lu jëm dëkk bu sell bi di Touba Habibu mii daf koo xamal ne ko liggéey bu réyee nii bu selle nii bu màgg nii ñu jëfal ko sëñ Tuubaa ci loxol Seex Rafaa rek lañ ko war teg kon nag nañ jël camion yëpp yor ko sëriñ Seex jëmb te digal ko dëkk bi bu fi fenn taq ci ab fàttali eh, xayma bu wota yooyu lee mi ngi toll ci juróom fukki million ak juróom-ñaar yu teg téeméeri ni ci koppar CFA benn wata bu nekk daal di dikk fukki million ak benn ci suñuy koppar terewul waa Touba ca kanam di fësal ne buñ joxee camion yi le Baye faal yooyu le tam terewul seen loxo du ci jóg daañu wëyandi li nga xam ne moom mooy jàppandal gi ba mbalit mi ci Touba daal di mën a jeex tàkk